ñoom ñaar jéggi na na jël na a ngi dóor ci suuf bu baax yéen internet Leewtoo TV di am contentement jano ak chaque jour nee naa leen mbégte bi moo leen indi li gën a fës ci xibaaru làmb nuyoo bi nag dama koy jël daal ci jiital borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko nuyu te di ko ñaanal jàmm ju bëree bëri Mbaye Babacar soo fay daal di ñëw jukkil leen li ruusee ci xibaaru làmb jërëjëf ajaratu Ndeye Mbacke Diop maa ngi lay fay di nuyu suñu xarit yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ak salaam di ko sàkku ci ñoom tamit di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ñuy ànd ak Leewtoo TV. di leen jaajëfal bu baax ba tax na revue bi nag ki leen koy may mooy gàmmu Jador moom leen indil pat Jador vermicelle j'adore macaroni j'adore spaghetti j'adore daan ci teg ataaya j'adore hi faama nag da ngay sëy rek ma indi la gàm bi mbay Babacar foofa toj xam nga faama moom dafa mokk pooj macha allah mi ngi noonu yàlla na jàmmam yàgg wante ba léegi suñu partenaires yi bokk na ci Eau Kayar di ndox mi nga xamante ne bii moo ñuy aar set na sel na neex na ferñeent ya ca biir tax ba sénégalais yépp taamu ko kon daal Eau mooy ndox bu ñuy aar nañ ko daan di consommer 14 juin 2021 journal suñu la moom xëyee ci xëtëb mu njëkkam xëyee nag mooy Yaxya Joob Yékini l'ex roi des arènes sa fi nag la muy wax ci journal bi mu ne je souhaite le meilleur à Bombardier lu tax mu wax ko nag dañoo am ay projet ñoom ñaar Mbaye Babacar ñoom ñaar dañoo am ay projet Bombardier seete woon ko fële ca Joal ñu bokk jotaay toog waxtaan ci lépp la nga xamante ne bii seen seen yëngu-yëngu la fas yéene doon ñoom ñaar jëm ci seen kanam lañ ca mën a jàpp nag mooy am nañ benn projet ba nga xam ne lépp dafa jëm ci développement Petite code bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokk kii mi ngi dëkk Joal kii mi ngi dëkk Mbour ñoom ñaar ñu fas yéenee taxawal benn projet ba nga xamante ne bii luy suqali gox yooyu lay doon incha allah diggante Bombardier ak ni kon ñu mën a xaar benn coalition entre les deux rois. Bombardier ak Yékini ca noonu nag super ndaje la ñuy wax super ndaje la bu ñu ko waxee face to face moo tax ñuy wax ka ko woote. Paf Abdou Fall borom Pape Abdou Fall borom Paf production kañ la woote le trente juin diggante Siteu le phénomène de Lamsar ak Papa Sow le puma de l'arène Mbaye Babacar. stade Iba Mar Diop la fas yéene amee incha allah ñoom ñaar ñu fas yéene faa amal jàkkaarloo bu am solo Siteu ak Papa Sow amateur yu bëri di leen xaar ndax combat bi yàgg naa taxaw. ñaari mbër lañ ya nga xamante ne bii bëri nañ coow am nañ gannaaw mën nañoo bëre mën nañoo bàkku ñoom ñaar ñu fa yéene jàkkaarloo incha allah ca stade Iba Mar Diop wante la ñu mën a jàpp ca jàkkaarloo booba ka koy animé mooy Boubacar jàlloo ñu naan ko DJ Boubs wante en direct lay doon ci ITV wante incha allah ña nga fay xaar ay artistes yu bëri ya nga xamante ne bii incha allah danañ fa prester. mooy noonu nag ginnaaw Alioune Mbaye Nder ba mu daanee ki Batista ba mu daanee Alioune Mbaye Deer en trent secondes. journal bi da nga xëy di xam ne ci moom nee na ñëwaat na dellusiwaat na tooyal ngémbam waaye ci succès Mbaye Babacar. Batista dellusiwaat gannaaw ba mu jógee ci ñetti defet ki nga xamante ne bii moom mooy maam góor Diouf daan ko Noiro ak euh, Libidor kon mën nañ jàpp ne fi mu toll nii génn na ci saako yi. Euh, Batista génn na ci saako yi. bëgg a teg bëtam fu sore sori ci wàllu làmb nag ndax kombaam bi jàll keroog dimanche wane na ko digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Aline Mbaye Nder nekkoon combat bu gaaw nag combat bi mën nañ jàpp ne ci 30 secondes la Batousta euh, daan ki nga xam ne moom mooy Aline Mbaye Nder. vite fait bien fait ca noonu nag Zarko ginnaaw point de presse ba mu woote ba mu woote nag kam duut baaraamu tuuma. Mbaye Babacar ka mu dul baaraam nag mooy Modou Lo le roi des arènes lam ci xam ne nag mooy lam def ndax Modou Lo Modou def ko ngir moom ndax du benn du ñaar yoon mu jël bakkanam di ko tayle ndax Modou kon daal mën nañoo wax ne Modou Lo fayul naar bi xoromam loolu la koo wax tey ci journal bi ndax nee na Modou yàgg naa def ay sacrifice ngir sagoom te man maa ko njëkk a wax ne ko demal dëkk Balla Gaye benn jour Balla Gaye ñëw ci benn làmb baa ko ba pare ma ko jëlal ndënd mi dem nga boo bëggee euh, sa yoonu làmb gën a gaaw jëlal demal demal nga dëkk ki nga xamante ne bii moom mooy Balla Gaye numéro 2 Modou xaw di hésité ma jël ndënd mi moom Zarko ànd ak moom ba ci Balla Gaye numéro 2 ñu tegal ko Balla Gaye kon mën na wax ne seen combat Balla Gaye ak Modou Lo bu taxawee moom joué na ci role bu rëy a rëy mën a jàpp nag mooy Zarko ak ki nga xam ne moom mooy moduloo seen diggante jeex na tàkk fi mu toll nii ni deew tubaab c'est fini wax na ci kombaam ak ki nga xam ne moom mooy Baye Mandione moom Zarko euh, barki démb la doon amal conférence de presse foofu ci seen kër président bu bees bi muy Aline Badara Kebe la mu wax mooy sama combat ak Baye Mandione Angleterre la ak pombi terre terre ji rek ñu boole wante arbitre bu soufflé ba génn sama diggante ak Baye Mandione dinaa ko won ne xale ak mag duñu benn xale ak mag duñ benn ba tax na dañ dem ci combat bay am diggante Bamballa ak ki nga xam te ne mooy Mbaye Guy gi 4 juillet ba mu nar a am nag Assane Ndiaye dafa ñëw en renfort Mbaye booy Dakar la teg mbay Babacar. Mhm. Gàmmu 2 Petit Niang ak Ziza Mbaye Babacar. waaw booy dakaar booy dakaar la ci boole ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Gàkku 2 boole ci Petit ak Ziza mu nar a nekk journée bu neex. ndax mbay guy gi Mame Balla rek loolu njarndem la combat jànq la ñoom ñaar fi mu toll nii dañoo xiifante ku ne gis nag barki dem ba arène nationale seen fa seen face to face bi seen jàkkaarloo bi wala bi leen di présenté euh, presse bi kenn mayul sa morom dara mm. xuloo ba bëri na. jàppal bàyyi bi bëri na loolooy wone komba bi teel na annoncé boppam diggante Mame Balla ak Mbaye Gouye Gui Assane Ndiaye borom Bawol production tëgg ko incha allah ñu mën a xaar komba bu rëy ndax ñaari ndaanaan ñoo ko fas yéene seq. ca noonu nag dañuy dem ba Fatick drapeau Matar Ba bi nga xam te ne Ndeye Ndiaye Tyson moo ko duppee woon ca noonu nag Serigne Ndiaye numéro 2 moo fa jël raw gàddu ga Mbaye Babacar. moo jël raw gàddu gi moom Serigne Ndiaye numéro 2 euh, wonewaat boppam ndax gis nañ ci mbappat yi. mu ngi jël rek li nga xamante ne bii moom mooy ay euh, drapeau euh, Ndeye Ndiaye Tyson nag àndoon ci ak euh, Ndeye Khady Seck chargé de mission monsieur ministre Matar Ba mu nekkoon làmb ju rey foofu ca Fatick yaakaar naa yaa nga fa woon combat yu neexoon tamit amoon fa ay ténor yu mag tamit nekkoon fa mais amateur yu bëri daal liñ doon ñaxtu mooy ambiance bi moo desoon. amee moo des waaye kii di. Gris Bordeaux bu Fass. dafa Gueye Eumeu Sène toj nañu fa macha allah. yëngal nañu fa ba mu neex. fa Fatick di yëngoo nag fee di Joal Fadiouth bay Babacar yëngu na ba neex ka fa woote woon nag di Yaxya Jóob ni ka fa daan mooy daan seen comme daan nag booy fay Mouhamed Bousso. Ngañ seen moo daan Mouhamed Faye Mouhamed Bousso ñu naan ko booy fay moo ko daanaat sax la ñuy wax ndax bi ñu mujjee daje drapeau di chef de l'État par équipe. Euh, ki nga xam ne moom mooy Ngañ seen daanoon na ko Ngañ seen bu jógee woon Kaolack. Euh, booy fay jóge woon Diourbel ngañ seen daanoon ko foofu ñu dajawaat fi nga xamante ne bii moom mooy Joal barki démb ngañ daanaat ko ci final bi kon mën nañ wax ne ngañ fi mu toll nii bii mooy cinquième finalam gannaaw ba mu jëlee Joal jël njagañaaw jël ñaning euh, jël fi nga xamante ne bii moom mooy mbuur ñëw na jëlaat Joal bii mooy cinquième cinquième cinquième euh, li nga xam ne moom mooy galaam mu koy jël kon mën nañ jàpp ne ngañ seen fi mu toll nii kenn mënatu koo génnee ci bëri simple bi ndax xale la yàggula ñëw ren lay soog a yéeg ci luur bi parce que man daaw maa ngi ko njëkk a ren maa ngi ko njëkk a gisee fas Ndiaga Coy mu bëre mais foofu poids léger la bëre jël léger bi jour booba la déclenché ne dootuma bëre léger luur laay bëre ngañ seen nekk étoile montante ba nga xamante ne bii mi ngi ci yoon ak lu làmb nan ko bàyyi xel. macha allah di leen ñaanal ndam loolu jig leen te noonu nag mercredi du CNG ba waa CNG di amale fee ci arène nationale ca taxawal nag mooy. takkandeer la jàppale ma takkandeer takkandeer waaw <laughs> ak Iba mécanicien taxawal dañ ko takkandeer Iba mécanicien c'est euh, mercredi de de de CNG mercredi de l'arène sax la ñuy wax parce que CNG dafa am benn initiative mooy que tous les mercredis mu taxawul benn làmb première journée bi nag mois d' avril la amoon le 7 avril la amoon nekkoon bëre simple. Mhm. wante bii yoon bëre door la ñuy la ñuy amal incha allah foofu ca arène nationale mel ni CNG ñoom xaaruñu promoteurs yi kese di tëgg mais ñoom tamit bu promoteurs yi yeexee rek ñu tëgg incha allah Iba me Iba mécanicien. ak ki nga xamante ne bii moom mooy takkandeer takkandeer de moom kum topp moom du la. waaw du la bàyyi ginnaaw ba mu daanee Nandi Fall ki nga xam te ni mooy Dame Sène Mbaye kar mu ko taxaw ci tànk nga xam te mooy Modou ngir lan mu daan sëll bu ndaw ba ca pikin waaw mu ngi noonu solidarité la woote ndax nee na gannaaw ba ma bëree ak Nandi Fall daan ko fi mu toll nii amatuma beneen bëgg-bëgg lu dul jàppale Modou Lo mu daan ki nga xamante ne bii moom mooy Ama Baldé wante duma ci yem dinaa jàppale Franc dinaa jàppale Papa ñoom ñëpp dinaa leen jàppale ci seen ay entrainement ndax sama combat nin ma ci taxawee noonu laa leen bëgg a taxawoo ba incha allah ñoom ñëpp ñu am ndam ci seen i combat kon mën nañ wax ne Parcelles Assainies. 100 pour cent parcelle mën na mën na sëkk mbay ma ngay dox bu baax a baax. bu baax a baax la dox nag. nara dox nara neex mooy diggante Boy Niang numéro 2 ak Tapha Tine Mbaye Babacar. diggante Boy ak Tapha nekk kombaa ba nga xamante ne bii ni ko amateur yi xamee ci luy bax lay doon du am ruq buy sedd tafaatin xiif Boy Niang Boy Niang tamit ñëw buuxante bu agsil boppam ci ponkal yi kenn xàllalu yoon waaw dafa reyante rampe jaar fi mu war a jaar boo yegsi ci ponkal yi war a bëre ak ki nga xamante ne bii moom mooy tafaatin tafaatin Tapha Tine nag ndaanaan la mën naa bëre mën naa xeex loxo ba xor na barki démb fekk nañ ko entraînement mooy entraînement lu doy waar wante booy ñaar tamit fekk naa ko foofu ci salle moom tamit muy liggéey la nga xamante ne bii billaay le 8 août ku ko tardé ku nekk yow laa nar a yërëm liggéey gars yi naan tibb def sa poche ah. waaw waaw tibb rek dugal sa poche yóbbu sa kër. lu leer loo liggéeyal jour làmb ji wax fekk Mbaye Babacar damay kontaan ci moom bu baax lan ngay tàggatoo jaajëfal suñu mbokki internet yi ñaanal leen jàmm ak salaam di leen bëggee saa su ne di leen wax incha allah dig daje bu ci yàlla àndee suba ak jàmm ci beneen numéro revue de l'arène. damay kontaan ci yéen bu baax a baax di bég ci yéen bu baax a baax a baax mention spéciale sama équipe technique bi Bilal Fama Yacine Fall damay kontaan ci yow bu baax a baax ah noonu laay def rek. di nuyu madame monsieur Kébé ah di kontaan ci ñoom Balla Kébé Serigne Ndeye Khady Dieng ah yaayu maam Jaara Bousso borom poroxaan di ko ñaanal xale bi gudd fan lool ndu turandoom yàgg fi lool lool lool te wér euh, happy birthday laa wax rek doomu ki nga xam te ne mooy Adja Nafi Ndiaye biram biram maa ngi lay naan happy birthday to you long life dundal dundal dundal dundal ba sa xol seddu guyaa ah, loo bëgg sa xol yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal dundal